am xaw a daw euh, mais li nga wax dëgg la c'est-à-dire Saara sama xarit la moom il est franc dëgg bu franc avec F minuscule man je suis franc avec F majuscule <laughs> li nga wax mooy dëgg c'est-à-dire depuis ba ñu nekkee ci pouvoir bi vers 2011 coow yi PDS am yëpp le parti a toujours comme seen comme fonctionné comme ça mm-hmm. Saara le sait Omar Sarr le sait Amadou Sall le sait moi je le sais mm-hmm. Abdoulaye Wade le sait ça et ça c'était légitime man jusqu'à preuve du contraire et toujours dama koy wax xuloog nit ki du tax ma ma xas la Ablaye Wade at yi mu am Sénégal yi dañ ko réew mi militants yi dañ ko parti bi mu am at yooyu ànd ak Idriss Seck taxal koog moom ànd ak Macky Sall taxal koog moom. Mhm. doomam am at yi mu am war a nekk ci wetam da koy toog di ko seetaan day toog rek après Saara ñëw jege ko fekk ko Versailles wala fekk ko Point E def loo koy affaire complot yi toujours muy am ay regret. dafay rafet doom ji. nekk ci wet gi mais buñ ñu d'accord ne Ablaye Wade moo nekk ay xelam yàlla may ko ay at yu bëri mu wër man je suis maire Sarr tous les actes que je signe yi may signé yëpp duñ ko bindee sama bureau mais maa koy liir su ma ci tegee sama signature rek man la. donc Wade approuve. s'il approuve ce que Sarr lui propose ou Omar Sarr le propose duñu wax kii la. proposé on donc dit il est responsable tey li ñu bëgg ñoom bëgg a bëgg a rafetal mbir yi bëgg ko bëgg ko sàng sutura naan du Abdoulaye Wade ki nga xam ne moom mooy Karim Wade la mbir yi c'est wadd ndax ñëpp xam nañ yow parti démocrate Sénégal bu nekkoon la seule constance c'est Abdoulaye Wade loolu laa bëgg a wax cest à suñu jëlee ci réalité bi texte bu ñu la jox yow ne la bon sa wala sa sa coordonnateur adjoint wala sa secrétaire général adjoint wala sa chargé des fédérations moo la proposé tel texte pour que nga signé ko au nom du parti communiqué ko soo ko signé on n'a pas besoin de rechercher qui est derrière l'acte li ñu war a soxla mooy est-ce que signé na ko. Mm-hmm. alors lan mooy expliquer aujourd'hui Abdoulaye Wade avec ses numéro 2 gis nañu fi Pape Diop gis fi également ki nga xamante ne moom mooy Oumar Sarr tey mais Ousmane Ngom également ñu ci bëri dafay tàqalikoo ak ñoom ba ci gouvernement bi mu fi nekkee Idrissa Seck Macky Sall Souleymane Ndéné Ndiaye lan mooy expliquer loolu. waaw en fait loolu je sais pas mënuma ko expliquer très sincèrement euh, li ma mën a xam rek mooy Ablaye Wade yàlla may na ko sunu sunu baay jooju sunu leader boobu. Mhm. yàlla may na ko li mu nas ci xelam xaw ma ko li mu yéene Afrique ak Sénégal moom laa ko toppee. Mhm. ba fii may wax ak yow. Mhm. yàgg naa ko préciser wax naa ko barki démb maak ay dara seen jotaay man Wade. mooy sama lépp ci wàllu àdduna wala wàllu politique ba tey ba fii may wax ak yow nii maa ngi ànd ak ma dikkee ñëw mais mooy suma référence damay ñaan yàlla mu may ko xelam ak kàttanam ba ci kanam ba ca kanam ba ca kanam mais li mu jaar yëpp ñi mu jaar yëpp man damay jàpp ne warul woon. boo gisee tey ci kan la jógee. Mm-hmm. digganteem ak Fara digganteem ak Boubacar Sall digganteem ak. Euh, Idrissa Seck Macky Sall Ousmane Ngom ba ci Madické lépp lépp. seetaane dugg na soo gisee tey li nga xamante ne mooy bukki ba mattoon Madické ñaa tey matt Oumar Sarr euh, te bi ñu koy euh, def boobu Oumar Sarr mi ngi fa yox daanaka doole joo xam ne moo toppoon ci maître Abdoulaye Wade ban jàngat nga ci am. waaw moom moo dawloo sama yaram sànq bu ma déggee Saara di wax parce que lii yëpp la Madické bañoon ñu bañ la ko ko. Oumar dañ ko fay borom nga gis wala. defe naa yàlla yàlla moo wane boppam et je vais m'expliquer Saara mi moo ngi desoon moom ak ñoom Omar mhm. ba ñuy wax ma dikkee xam nga fii dañuy wax ay Omar dafa dem palais taxaw ne sama parti àndu ci sama leader àndu ci d'ailleurs sax bind nañ lettre xaw ma ku ko bind waaye man sama jëmmu bopp Sénégal a ñor bu ñu wootee senegal damay ñëw mhm. loolu lu ma ci tekki keroog sama fi ma toog dama ne kon li muy tekki mooy Ablaye Wade ak parti am Sénégal ñoru leen ba tax demuñu moom Omar Sarr la Sénégal ñor moo tax mu jël responsabilité am fippu dem wuy ci mm-hmm. est-ce que Madické def na lu mel noonu Madické deful lenn lu dul Karim mi ñu def candidat wax na ko nee na leader da ngay prévenir pour bañ parti bi tasaaroo wax na ko aussi depuis création parti démocratique sénégalais rendez-vous mel ni présidentiel PDS mosu ko manqué. Mm-hmm. Madické ne pour ñu bañ ko manqué te parrainage dafa dugg bàyyi leen ma ngembu à côté de Karim dugal sama parrainage. su Karim jàllee ma bàyyi ñu ànd su Karim jàllul te ñu nara a perte rendez-vous boobu ñëpp ñëw jël suñuy doole jox ma ko ñu dem mu taxaw fa PDS. Mhm. loolu lañ ko dàqee te bañ koy dàq. foofu sax dinañ ci gën xaaral xaaral ma wax la foofu dafa am solo bañ koy dàq. Mhm. ñun dañoo wax ne bu kenn imposer pensée unique. Mhm. mais li ma ci gën a metti mooy interview bi ma seetaan à propos de Omar Sarr. ab journaliste jox ko micro. ne ko Omar Sarr est-ce que mun nañu xaar le PDS. votel pour ma vous vous rappelez quelle a été sa réponse dafa ne journaliste bi bul ma fontoo daal koy won ginnaaw mhm. alors Omar Sarr n'est pas parti il ne pas le secrétaire du parti aucune instance du parti en ce moment ne s'est pas réunie pour wax kan la ñuy woteel pour qui se prend-il en ce moment précis un frère du parti Madické Niang jël responsabilité pour parti bi su ñàkkee candidat mu nekk candidat mhm. muy laaj ndax parti bi mun nañ ko mun nañ ko woteel li gënoon rafet mooy xaaral ba instance yi daje mais daf ko ne bul ñu font mais yàlla tey indi na dëgg mooy kooku ñu jàppoon ne bëggoon na sauver parti bi ci lii ñuy wax suqali pour que rendez-vous boobu am doomu parti bi bu taxaw ma dikk jël responsabilité ñun ñu ànd ceeg moom tey ñoom nangu nañ ne parti bi war na xoolaat erreur boobu ñu waxtaane ko. est-ce que kon gàcce ngalaama yàlla ñëw nag. intervenir ci contexte boobu jubale leen ñoom ñaar. ci même moment boobu ab courrier génn ab bataaxal wane ne Omar Sarr yii muy def. moo gën a pire li mu nangu woon ñu dàqee ko Madické Niang alors loolu tax nag ma ne sama yaram daw na daw bi nag dama ciy ñaan li mu wax seytaane bi dugg ci biir parti démocratique sénégalais defe naa ne xalif baa ngi koy commencé fàdd di jubale di ñëw mm-hmm. yàlla na bokk ci ñoom ñëpp ak ñun ñëpp ñu ànd nekkaat benn. mais jeu de ping pong boobu nga xamante ne ñu ngi ko nemmeeku maître Abdoulaye Wade di ko def peut-être euh, pour diviser un peu certains responsables au détriment euh, doom ji moom la ñu mën a au profit euh, excusez-moi bu doom bi noonu est-ce que loolu tamit du gën a nasaxal li nga xamante ne moom moo di parti bi aussi. alors euh, oui c'est pour qui. c'est pour vous Fatoumata gis nga gis nga léegi kenn dofatul Abdoulaye Wade mooy suñu leader de mais xam na ne am nañ fulla bu toll ni mhm. mënuñu imposer une pensée unique ah d' accord